abonné leen ci seen seen YouTube Partout TV moom leen di jox xibaar yu wér te wóor Partout TV abonnez-vous Partout TV Partout TV Euh, dalati leen ak jàmm mbokk internet yu partout TV euh, kawteef nag euh, kii di aji Sarr gannaaw nag bi ñu jotee xibaar yi rek mën nañ ne am leneen loo xam ne rek daal dinay jot a yeesaat ci mbiri ki nga xam ne rek moom mooy aji saar gannaaw ay xaritam yoo xam ne rek jamono bii ñu toll nii ñu ngi def ay sortie dina ko sàkku wàllu ci ki nga xam ne moom mooy aji Rabi Sarr bu ñu fàttalikoo dossier am nag doxoon ci diggante ma kii di Ousmane Sonko te tamit xibaar yi ñu jotoon ci suba rek te muy gannaaw bi mu taalee néegam bi. leneen li nga xam ne moom moo ci beesaar rek ñii di ay xaritam nekkat moom mii di Adji Sarr dafa mel ne sax ku xaw a tàqalikoo ak sagoom euh, tax nag ñu siy sàkku li nga xam ne rek moom mooy ndimbal nekkat boobu ba tey gisoon nañ sax ki nga xam ne moom mooy Gabriel Kane mën nañ ci sorte yi nga xam ne daanaka def ne Adji Sarr dafa amee dépression booba ba tey mën nañ ne ñu bëree bëri nekkat moom moo ko tey wante lu ci mënti am rek mooy ne jamono bi ñu toll ni ñu gis ay ojo yoo xam ne rek mu ngi fuyute ci ñi nga xam ne rek ay jege ñaaleem lañ te la ñuy def du lenn lu dul rek di sàkku te tamit di ñaan dimbal nekkat jamono bi ñu toll nii sonn na lool gannaaw sax ba ñu ko génnewee ci fi nga xam ne rek fa luye woon ndaxte borom kër gi dafa dem ba xam ne kat gannaaw ma ngay taal boppam ci biir néeg ba te mën naa yàq ci alalam ci bâtiment boobee nga xam ne rek fa la nekkoon tax nag mu nekk ci guddi gu bët setegul gannaaw jafe-jafe yi nga xam ne rek dundoon na ko ci digganteem ki nga xam ne rek moom mooy président Ousmane Sonko ba taxoon sénégalais yu baree bari rek daal di pare woon ci ay mbiram maanaam ay dossier moom tegoon ko ne tege jamono bi ñu toll nii nag mën nañ ñu baree bari ñu ngi tourné waat di gëstu ci mbiri ki nga xam ne moom mooy Adji Raby Sarr nekkat ana ñaka doon buux di ko teg loxo di ko dugal ci ay musiba yoo xam ne rek dem na ba dernière minute mu commencé nag di ko soog a réccu te réccu day fekk jëf fees jaa ngeen jëf